wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu seen yóbbalu bis bi ak ndongali Cheikh Ndiaye Gana sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaara lahu moo daa bind xatmu bi nuy xatmoo kaamil yi ci njaareem jox leen bu yàggee mu joxaat leen beneen ba mujj mu woo sëriñ ma jëmm silla radiyallahu taala anhu jox ko xasidaak taysirul asiir ne ko séddaleel ma ko juróom benn xaaj ba mu ko defee sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaara loxo ne ko ci bii laa leen di mujj a joxe ab xatmu ci ngeen di jàpp ba yowmal xiyaamatul akbar bu ngeen xëyee na ngeen yenn ci benn buntu ba jant bi so ngeen door a jàll ne ko ma jëm musil la mu ne ko mbakke sëriñ tuuba xaarala wallaahu maxtaaralahu ne ko saa borom subhaanahu wa taala xamal na ma ne moo moom alquran may na ma ko ma jëm musil la mu ne ko mbakke mu ne ko alquran joojee dénk naa la ko wér na sëriñ ma jëm musil la mii radiallahu taala anhu moom la sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahu defoon njiitul daara ja wallaahu aalam وقام لنا الوقت وما إلى السلام